ci sànq dañ ñoo woo wax ñu benn xew-xew woo xamante ni mën nañ tiis la mën nañ ñi nakar la ndax sànq la woo xamal ñu nu benn waay boo xamante ni dafa xamuñu sax exactement que daf fi daanu xamuñu exactement ba xam nit moo ko fi def waaye jëf la joo xamante ni jëf bu ñaaw la ndax biñ ñu woowee dañ xamal ni dafa am benn waay boo xam dañ ko fekk fi nga xamante ni moom mooy ci suuf pont bi fi tolloog canal bi bu ngeen xoolee nii xammee ngeen fii ci gendarme yi ñoom ñëpp ñu ngi fi ba ñu nga xamante ne sax ñoom ñoo dëkk ci alentouru pont bi ñoom it ñu ngi fi di di di di di ah, di di seetaan li nga xamante ni moom moo xew ndax tamit lii <laughs> waxuma ni mus fi am waaye tamit gëj noonu ko gis fi nga xamante ni moom mooy ci suufu pont ah, Sénégal 92 bi ndax nit ki sànq la ñu ko xamal bu ngeen xoolee ndox mi noonu sax waa ji moo tëdd foofu gis ngeen ko ba tey sapeur yi ñu ngi taxaw ñoom di xaar xamaguñu nag exactement lan moo tax boobu ba léegi génneeguñ ko ou bien dañuy xaar ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité administrative wala boog autorité yi nga xamante ni ñoom ñooy seen njiit ñoom it ñu ñëw waxtaan wala boog ñëw def constat bi nga xamante ni war nañu ko def avant ñu ko fee jëlee ndax tamit lii lu doy waar loo xamante ni jéggi na dayoo jéggi na dayoo bu ngeen xoolee lii ñaaw na image boo xamante ni bu bu bu ñaaw la waaw image bu ñaaw la sañ ñu ko nag bañ a jël ndax tamit information la aussi actualité la ak lu mu mënti jar rek dañuy sacrifier wàcc sur le terrain dem taataan nañ leen ko ndax tey mi ngi tombeek aljuma le 4 octobre 2024 gis ngeen ko nii ci suuf si si sànq fii ay fanweeri simili la la am bi ñu wooweeg léegi waaye gis ngeen ni li fi am gis ngeen alentour pont bi fees na dell ki nit circulation bi sax mu ngi dox normalement mais teewul daal li nga xamante ni nemmeeku nañ ko fi doy na waar doy na ki tëdd noonu di ngeen xam ni góor la waaw ndax ni mu tëddee dëpp na sax waaye di ngeen xam ni góor la gis ngeen ko noonu moom moo tëdd noonu mu nekk image yoo xamante nii yéeme na lool lool lool lool lool il se nag agression lay doon il se tamit ku ku ku tàqali woon ak sagoom lay doon tout est possible waaye ak lu ci mënti am rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy police scientifique yi ñi nga xamante ni ñoom la seen xel màcc ci genre yu demee nii ñoom it dinañ def seen enquête jéem a xam li nga xamante ni moom moo waral lii ndax lii nga xamante ni gis noonu ko moom yéeme na yéeme na yéeme na yéeme na trop torop torop sax mais dinañ leen ko toppal tamit incha allah ndax bu ngeen xoolee oto sapeur yi ñu ngi nari ci ginnaaw ak oto gendarme yi ñoom it ñu ngi taxaw ñu nag exactement nu ñuy waxtaanee noonu gis ngeen leen gis ngeen leen noonu waaw waaw ñu ngi koy xamal moom moo sol noonu en bleu costume africain bi gis ngeen ko noonu def masque bi ndax tamit euh, li nga xamante ni gis nañu ko fii ah heureusement heureusement parce que lii xoolee sax nii mu demee nii dañuy xam ni même bu dee du tey sax yàggul ndax tamit bu xawoon na yàgg il se peut mu mu mu mu mu commencé décomposé wu commencé yàqu waaye li ñu gis nii daal yéeme na trop trop trop bay duudu comme nu ñu leen koy deflee rek ni ñu ko xamalee ni ki sànq looloo tax ñu wàcc le terrain ndax boobu ba tey ñu ngeen gis actualité bi nga xamante ne moom lañ leen di toppal fii ci Sénégal kon lu xew rek dañuy wàcc tam sur le terrain ko taataanal ci image rafet mais ci ay kàddu yu leer duñ ci yokk mais ci wàññi ndax nga xamante ne moom la ñu gis nii nii nii si la ñu mën a yamandeegum tànk ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, autorité administrative yi ko mën a bokk autorité policiers yi ba ci gendarmerie joxe guñu benn déclaration sapeur pompier yi ñoom ñëpp buñ buñ buñ ñu woowee fii ak tuuti ndax incha allah ak lu mënti xew fii nga xamante ne foofu la tëdd dinañ ko fa jëlee mm. ak lu mënti xew foofu nga xamante ne moom la tëdd dinañ ko fa génnee ndax fii du place am donte nag jëf ji xamuñu ñu ko jëf xamuñu nu mu demee waaye ñu ngi fi coach wu taxaw faire face ak nga xamante ni moom mooy li xaw pour mën leen rek jëlal li nga xamante ni moom moo fi war a amee fi wekk ay simili yu néew ndax bi ñu ko xamalee boobu ba tey yegsi nañu fi biñ fi yegsee tamit def nañ état des lieux xool nañu jàngat nañu li nga xamante ni lii moom lañu fi gis waaye li ñu fi gis moom lu lu lu lu yéeme la lu yéeme la Baye Doudou kon daal fi wekk si kanam tuuti ñu xool ñi nga xamante ni ñoom ñooy sapeurs yi yegsi nañu ah xamaguñu ko waxee léegi lan moo tax boobu ba léegi ñoom it dugguñu ci biir ndox mi il se peut dañuy xaar yenn yenn yenn yenn euh, comment dirais-je waaw yenn dirigeant yi wala bokk ñenn ci ñi nga xamante ñoom ñooy seen njit ndax tamit noonu la xam nga yit du am rek nit ñëw rek ne da koy sauver wala bokk nit ñëw rek ne da koy dindi non il faut policiers ñëw il faut gendarmerie ñëw il faut sapeur ñëw comme ñoom ni ñu ñëwee nii mais aussi tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy maire gox yi wala bokk ñi nga xamante ñoom ñoo ŋànk collectivité yi ñoom it ñu ñëw mën a détecter li nga xamante ni moom moo am ndax tamit seen zone la bokk waaye daal waaye daal trop trop trop encore une fois dañu koy ñaanal rek waaw yal na ko yàlla yërëm jéggal ko te xaree ko aljana te aussi bu fekkee dafa am ñoom ñoo xamante ñu ñoo jëf-jëf ji waaw yal na leen yàlla nit ndax lii lii lii c'est c'est à déplorer lii c'est à éviter plus bu fekkee nitu ko def parce que fan yi yëpp ci ginnaaw gis nga yi daan nañu ko nemmeeku waaye pas anam bi nga xamante ne moom lañ ko gisee tey ci biir ndox bi waaw daan gis sax nit daa ah, fat nit daan nañu gis nit def nit jëf joo xamante ni du bokk ak li nga xamante ni moom moom moom moom moom mooy moom mooy li war waaye jëf ji nga xamante ni nii plein bi adduna bi ñëpp génn di leen di leen di leen di leen di leen di leen di leen di leen di leen di leen di di ko di ko seetaan nii ah parce que des fois di nga dégg ñu ne la ku ku faatoo ca marché ba yaa tàgge sa bopp waaye lii lii lii bu fekkee moom moo ko jëf jëfal moom moo ko jëf boppam ah lu ñaaw la kon bu fekkee tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo daam ñu ko def waaw dañu ñaan rek waaw yal na ko yàlla yal na leen yàlla ñit waaw ba nga xamante ni nga xamante ni Ah, ñoom jëf nañu ko suñu borom wan leen ni maa leen ëpp doole waaw ba ba teg leen loxo ndax lii moom doy na waar lool bu ngeen xoolee nii nga xamante nii la tëddee ci ndox mi xam ne lii ñaaw na xam nga dadul sax teggin ñun ñi nga xamante am mais aussi waxal li nga xamante ne moom nga gis moom a def ah, na lool ñaaw na lool kon dañuy masaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay mbokkam xamaguñu nag exactement moom fu mu dëkk nekkoon xamaguñu exactement turam xamaguñu exactement ñi nga xamante ni ah, xamoon nañu ko waaye ak lu ci mënti am rek loolu incha allah dinañu ko topp fii ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy concernant yi waaw comme ñu ci mel ni policiers yi commandant yeeg adjudant yi waaw ku ci mën a def après déclaration rek incha allah dinañu ko dëpp suñuy micro waaw ñu xamal ñu tuuti ay information ki nga xamante ni moom moo tëdd bu fekkee ñoom am nañ ci information waaye daal ko ni ngeen Ah, mu ngi tëdd mu ngi tëdd mu nekk lu ñaaw loo xamante ni tey jii la am ci aljuma ji ah du ñu ne sax tey jii la am waaye ñun tey jii la ñoo ci aljuma ji tey mu ngi tombeek ñeent fan ci weerum octobre ah ñu ngi gis nga sax ah, fi wet début semaine prochaine rek allah ñi nga xamante ni élèves yi war nañu ubbi ah dëgmal ca daara yi tey ñu nemmeeku fi nga xamante ni moom moo am fii ci Padoa ah encore une fois ñu koy ñaanalaat ah, yal na ko yàlla yërëm jéggal ko di xare ko aljana ah, ba ñi nga xamante ni tam ñoom ñoo jëf-jëf ji bu fekkee ay nit ko def tamit suñu borom teg leen loxo te ñiital leen bëccëgu ndaram kam bu ngeen xoolee xoola bay duudu xoolal fa fële gis nga ñii nga xamante ni ñoom ñooy ñëw sapeur yi ñoo taxaw ah sapeur ñoo taxaw ak policier yi ah meeru Padoua bi fii ah, ndax tamit koñam la secteur am la c'est très normal moom it mu ñëw fi police scientifique mooy gaari na leen police scientifique ñoom mooy gaari na leen waaw c'est normal ndax ñoom it ñoom ñuy def li nga xamante ne moom mooy enquête noonu circulation bi mi ngi dem normalement xamaguñu nag euh, euh, léegi fii ak ci kanam lu fiy xewaat euh, ñu ngi écoché wu daal taxaw faire face jàkkaarloog li nga xamante ni moo may li xew lu fiy war a ame rek incha allah fii ci univers info ak bi média ak sunu plateforme yi nga xamante ni ñuy seetaan ñëpp ah, dañ leen ko ci taataanal dugalal leen ko dugalal leen ko gis ngeen ko ni Doudou Doudou Doudou Doudou lii doo xam sax après noo koy commentaire ndax da ngay xool tey si c'était toi wala boog bu fekkoon kenn koo xamante ni sax xam nga ko te sax mënuñu bañ a wax ni sax xam nu ko ndax boo xoolee xaw na nañu sori ah te xamaguñu tamit ah, kanam gi bu baax a baax. mais daal waaw ci an anam la demee nii tey il se peut ay mbokkam ñi ngi ko doon wër tey il se ay mbokkam yaakaar nañ ni daa tàggoo fenn tey il se ay mbokkam dañoo yaakaar que ni liggéey na tout est possible waaye ak lu ci mënti am tey gis nga jëf ji nga xamante ni moom moo fi amee nii nii ñoom tey ñi nga xam ñoom ñooy ay mbokkam tey bu ñu ko gisoon dina leen tiis mais aussi dina leen métti ndax lii nga xamante ni gis nañu ko nii ah yàgg na couvrir ah nañu couvrir waaye lii moom doy na waar lool lool lool kon dañuy dagg fii tuuti euh, xaat nga xamante ni sapeurs policiers yi ay simili yu néew incha allah koy génnee ñu leen ko lancé waatal leen ko fii ay simili incha allah kon gars yi nii lañ leen koy defalee ci actualité bi merci beaucoup. aca ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen doon topp di fi boobu ba léegi il est 14 h bi ñu woowee sànq ci suba wax ñu xibaar bi nga xamante ni moom moo am fii ci suufu pont. Sénégal 92 bi ñi nga xamante ni nag ñooy ñoom sapeurs yi commencé def sax li nga xamante ne moom mooy seen liggéey ndax mën nañ jàpp ne ñoom lañ doon xaar wala boog détective yi nga xamante ne ñu ngi ko doon xaar mën nañu na gis ngeen leen ñu ngi nii taxaw ñii yor ay corde ñii ñu ngi yor placard yi ñii ñu ngi yor bépp matuwaay boo xamante ni bu danañ koy utiliser pour mën a sauver ki nga xamante ne moom moo nekk ci ndox mi gis ngeen leen ñoom ñoo taxaw na le waaye ba léegi nag koor bi mi ngi noonu tëdd ci biir ndox bi gis nga ko comme niñ leen ko defalee woon sànq rek noonu lañ leen koy toppalee ba incha allah ñu fiy jóge sapeur yi gis nga yokk nañ sax renfort gendarme yi aussi tamit yokk nañu renfort policiers yi aussi pareil waaw lépp rek pour mën a def seen liggéey ci ni mu waree gis ngeen ko ni gis ngeen gis ngeen ko ni gis ngeen ko ni gis ngeen ko noonu ba tey ñu leen di toppal liggéey bi nga xamante ni ñoom ñii di sapeur yeeg gendarme yeeg policier yi war nañu ko amal ndax tamit lii comme ni ñu ko waxee woon sànq rek lii plus jamais ça plus jamais ça ndax lii rafetul waaw lii rafetul d'accord nit dafay génn àdduna xamuñu nag ba xam lii jëf la joo xamante ne ay nit ñoo ko def xamuñu nag exactement ba xam tamit ko xamante ne xelam matul woon xamuñu tamit exactement ba xam kii mooy kan waaye ak lu ci mënti am rek incha allah loolu dinañ ko topp waaw dem ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité yi ku ci mel ne commandant yeeg ñi nga xamante ni war nañ ci mën a pax part de responsabilité pour mën a faire face ak euh, xibaar yi ñu jox ñu ci ay information ndax sànq gis ngeen police scientifique yegg si na ah sapeurs yi ñoom ñu ngi noonu ba tey gis nga ñu ngi noonu ba tey liñ doon xaar mën nañ ni lépp yemb na ndax sànq biñ fi yegsee am na ci ñoo xamante ni sax solo wu ñu woon comme genre tenue yi nga xamante ni gars yi sol nañ ko waaw ba moo waraloon amoon nañu dem jëli yi nga xamante ni ñoom dañu koy soxla ñëw nañu nag gis ngeen gis ko ñu ngi noonu ñu ngi noonu mais fi ñu xaw a taxaw nii euh, policiers yi ñooñu ñooñu ñooñu arrière <laughs> waaw d' accord nañ d' accord nañ waaye comme comme permettre nañ ñu rek pour ñu gën a mën a amal ñu ne suñu liggéey dañ leen di jaajëfalaat bu baax ci compréhension boobu nga xamante ne am nañ ko ndax ñun ñoom ñoo bokk terrain bi tey lii bu amul woon ñoom tey duñ fi wàcc si lii bu amul woon yi ñun ñi nga xam ñooy taskatu xibaar yi aussi tamit duñ ñu fi duñu fi fekk waaye gis ngeen leen ñoom ñu ngi nii ñoom sapeur di waaja a dugg fi euh, ndox mi ndax fii nga xamante ne moom lañ nekk ban la ban la waaw ndax sànq am na ñoo xam dugg nañu waaye dañoo génnaat ndax il sa peut tamit dudul wóor euh, ba moo waral ñoom it dem nañu jël seen matuwaay yi nga xamante ni moom la ñuy soxla pour dugg ci ban bi waa jaa ngi noonu tëdd. waa jaa ngi noonu tëdd gis ngeen ko mu nekk ay image yu ñaaw yoo xamante ni mënuñu ko bañ a jël waaye nag euh, comme on rek information moom dafay wér te dafay leer. waaw moom moo waral dee fois ñuy braqué ci corps bi moom moo tëdd noonu ci biir ndox bi ah gis ngeen ko noonu ah. Euh, autorité administrative yi aussi tamit ñu ngi fii ku ci mel ne maire Padoa bi ah, ñi nga xamante ni ñoom ñooy concernant it ngànk collectivité locale bi yëpp ñoom it ñu ngi fi. Euh, assisté ñi nga xamante ni ñoom ñooy policiers eg gendarme yi ba ci sapeur yi gis ngeen ko sapeur yaa ngi noonu sapeur yaa ngi noonu ñoom ñu ngi wàcc pourquoi pas ñu ñu ñu avancer pourquoi pas. pourquoi pas pour mën a wan internet yi ñi nga xamante ni noonu la euh, noonu la noonu la noonu la noonu la euh, sapeurs yi war a defee seen liggéey mais mais mais mais ñu nit ñu nit nga xamante ni bokkuñu suñu rek ngir yàlla nañ dumbali rek waaw sinon rek ñun ñëpp nañuy yàkkal suñu liggéey te ñoom waaw boobaa duñu mën a def li nga xamante ne moom mooy seen seetaan bi ñuy seetaan gis ngeen sapeurs yaa ngi noonu sapeurs yaa ngi noonu sapeurs yaa ngi noonu dox nank di dugg gis ngeen ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen takkal corde bi kii takk jiitu ñeneen ñaar yi nekk ci ginnaaw ginnaawam ndeysaan ndeysaan ndeysaan gis ngeen ko gis ngeen xolo bu ngeen xoolee ñoom ni ñuy doxee sax xam ni xam ni xam ni xam ni ban bi dafa dafa diis gis ngeen ko noonu sapeur yaa ngi noonu di dox sapeur yaa ngi noonu di dox sapeur yaa ngi noonu di dox sapeur yaa ngi noonu di dox ndeysaan léegi ñu yegg ci koor bi ban bi nag mooy xaw a diis ban bi mooy xaw a diis ban bi mooy xaw a diis gis ngeen eh. gis ngeen ko yegg nañ teg nañ placard bi teg nañ placard bi teg nañ placard bi oh ndeysaan ngeen ñaanal ko bu baax yal na ko yàlla yërëm jéggal ko te xare ko aljana bu fekkee it dafa am ñoo xamante ñoom ñoo jëf jëf ji yàlla na yàlla teg leen loxo feeñal leen ci anam gu gaaw gis ngeen lii gis ngeen ko ñu ngi koy yéegal noonu ci placard bi ndeysaan yéegal nañ ko yéegal nañ ko yéegal nañ ko yéegal nañ ko ndeysaan doo doo da ngay dem ba dootoo xam sax nan nga koy mën a euh, commentaire waaye nag euh, on y peut ya waaw c'est le risque du métier waaw dañuy sacrifié wu rek ak li mu jar yëpp ñu jaayante ko gis ngeen ko teg nañ ko ci placard bi ñu ngi koy puus ñu ngi koy puus ñu ngi koy puus ñu ngi koy puus ndeysaan gis nga kenn ki jox na feu kenn ki pour mu xëcc li nga xamante ni moom mooy corde bi ndax tamit corde bi tey moom mooy xëcc euh, moom mooy xëcc moom mooy xëcc placard bi il se peut waaw ok gis ngeen ko ok ah, waaw waaw waaw waaw cëy oh. gis ngeen ko est-ce que nekkul dañuy xool mettre jour distance bi nga xamante ni foofu la nekk mais mi ngi lemaat mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi lemaat euh, euh, mètre bi mi ngi lemaat mètre bi mi ngi lemaat mètre bi mi ngi may leen ko garaawul may leen ko oto police bi mooy arrière oto police bi mooy arrière moo ko tey bay laaj gis ngeen ko ñu ngi koy génnee noonu ndeysaan ñu ngi koy génnee noonu ñuy jaajëfalaat bu baax sapeur yi ndax c'est pas évident lii yombul ku xool liggéey bi nga xamante ne moom lañuy def xam ni yombul ah, gis ngeen ko noonu ñu ngi noonu di ko génnee ndeysaan gis ngeen leen noonu gis ngeen leen noonu ñu ngi koy génne oh c'est très dur gis ngeen ko noonu sapeur sax dañoo sonn ndax fii ban la non non xam nga te te te te nit moom comme ni ñu koy waxee bu génnee àdduna pois bi day yokku ah, te fi nga xamante ne moom la ñu nekk ban la mooy waral gis nga dañuy yëkkati tuuti teg ah mais ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax ci liggéey bi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy def ndax tamit ah, li yombul yombul yombul mais encore une fois ñuy ñaanal ki nga xamante ni moom moo fi jóge rek ah. Ah, di ñaan tamit ñi nga xamante ne bu fekkee ñoom ñoo jëf jëf ji ah, suñu borom yàlla na leen teel a wan wane la yoon ah, ba ba ñoom it ñu mën leen xam ndax lii lu ñaaw la lii lu ñaaw la lii lu ñaaw la lii lu ñaaw la lii lu ñaaw la lii lu ñaaw la ndeysaan nii rek la leen koy defee oh oh yëkkati nañ ko yëkkati nañ ko yëkkati nañ ko xala xala juri kaa leen ni kaa leen ni kaa leen ni

ñu ngi koy génnee gis ngeen ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale yi ñoom ñu ngi tàccu sapeur yi ñu ngi tàccu sapeur yi ndax xamoon nañ ni lii yombul woon mujj nañu matale seen seen seen mission mujj nañu matal seen mission waaw ah, ndax yombul dëgg la comme ni ñu ko waxee sànq xam ngeen ni lii lii lii lii lii fi ñu ko ndeysaan ndeysaan oh c'est très dur gis ngeen ko noonu gis ngeen ko noonu teg nañu ko teg nañu ko ñi ngi secourer ñi duggoon di leen uh, tekkil kii gis ngeen ko gis ngeen ko noonu corps bi génn na léegi ñi nga xamante ni ñoom ñooy policiers ak gendarmerie ñoom it dañuy def seen liggéey euh, ba ci ba ci ba ci ba ci autorité bi nga xamante ni moom moo ŋànki maire bi di maireu Padois bi gis nañ ko bopp moom it biñ biñ ñu xamalee euh, xibaar bi ba tey mu ngi fi gis nañu ko gis nga moom moo taxaw na le euh, def mask bi def masque booy ngir yàlla te yàlla tax dimbali leen ñu waaye booy ñun caaxaanu gis ngeen ko sapeur yi ñooy ñooy simeeku nii waaw xale yi encouragé leen Euh, tàccu leen parce que li yombul fi ñu duggoon risque la woon ndax euh, ban la goo diis na loolu moo waraloon bu ñu payé woon sax euh, placard bi seen koy téye benn 10 secondes à 15 tegaat ko ndax dafa diisoon ak plus seen daal yi nga xamante ni sol nañu ko waaye alhamdulilah ba génnee nañ ki nga xamante ni moom moo nekkoon ci biir yu une fois dañuy masawu mbokk ñi nga xamante ni ñoom ñooy aji ki ñàkk ndax il se peut ba ba jamono ji sax il se peut xam ci lan la nekk il daf leen tàgg woon liggéey il se peut daf leen tàgg woon seeti mbokk il se peut il se peut daal li interrogation yi bari na comme ni ñu ko waxee woon ci suba ak léegi mais gis ngeen leen ñoom ñëpp ñu ngi nii ñoom ñëpp ñu ngi taxaw ñoom ñëpp ñu nii taxaw waaw xala xaar xaar ñuy jéggi xaar ñuy jéggi eh, Euh, Kani. gis ngeen ah, ñoom ñu ngi ko wër Euh, du ñàkk ñenn ñi dinañu jéem a xool ba xam dinañu xàmmee kanam gi ou bien du ñàkk ba xam dinañu xool bu baax ki nga xamante ni moom moo tëdd waaye ak lu ci mënti am rek gis ngeen leen ñu nit ñu ngi faire face ak ñoom pour mën a xam réellement lan lan lan moo sabab li ak li ci war a topp yëpp ndax gis nañ fii ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi ah, police gendarmerie ah, police gendarmerie ñëpp ñi nga xamante ni rek ah, concernant nañu ci ah, liggéey bi nga xamante ne war nañu ko amal sapeur yi ñoom ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax ndax ah, bi ñu ñëwee ba ba ba ba diagnostiqué fi nga xamante ne moom mooy état des def nañu renfort xool li nga xamante ni doonu koy soxla bu ñu demee tamit jëli nañu lépp ba ñëw dindi ki nga xamante ni moom moo nekkoon ci biir ndox bi gis nga ni mi ngi noonu ñoom ñu wër mi ngi noonu ñoom ñu wër xawuma nag exactement ba xam dañuy jéem a dañ koy jéem a photographier dañ koy jéem a photo ah pour mën a après PASCO ñi nga xamante ni ñoom la ñu pour ñu mën wane kii nga xamante ni moom moo nekkoon fi nga xamante ni moom mooy ci ci ci ci ci canal bi ah lu ci mënti am rek incha allah fii ci kanam tuuti yooyu yëpp dinañu leer ndax tamit bëgg nañu dékk micro ki nga xamante ni moom mooy commandant bi wala bokk ñenn ci sapeurs yi wala boog ñenn ci policiers yi ñoom it buñ ñu jëmee xamal tey lan moo waraloon lii wala bokk lan lañ ñu ci mën a jox comme information ñu xam leen leen ko ñeen ñi nga xamante ni yéen ñuy topp ci suñu différentes plateformes gis ngeen ko noonu waa ji mi ngi noonu ah, ñoom ñu ñoom ñu sekk sapeur yi ñoo ko ñoo ko sekk ah, ah gendarme yi tamit nekk ci ginnaawam di ko di ko di ko di xool gis ngeen ko mu nekk lu lu lu doy waar gis nga ah, ñi dëkk ci alentour yi même ñi nga xamante ne si tax dëkkuñu fi buñ fi rombee ak li ñu gis nii dañuy ñëw taxaw jéem a xool lan moo fi xew ak gis ngeen ko def biñ ko yégee ci ci ci ci ci ay midi ba jamono ji ah fees na dell fees na dell nit ñi aussi di gën di ñëw nit ñi di gën di ñëw mu nekk daal loo xamante ni daal lii doo xam sax doo xam sax noo koy noo koy noo koy noo koy commentaire waaye nag comme li ñuy wax toujours rek dañu koy jaayante.